Euh, sëñ Cheikh Cheikh Abdou Bara Dolly mu wax ne yéen waa Wallu woole woo ko laaj na leen ngeen xamoon li ngeen bëgg a def kon nu ngi ko impliqué wu daf si maandu. waaw xam nga xam nga xam nga moom li mu wax am na ci liberté am na ci droit wax mais li mu wax ak wul ak dëgg waaw mu ma nag mais méngoowul ak dëgg ndax li mu njëkk wax mooy moom du du du du du du voté commission di bañ a voté plénière yi tàkk mu bañ a voté te ñëpp xam na ne bi ñuy nekk commission. am na ministre yoo xam ne bi ñëwee seen bés te bi ñu demee plénière joxe na procuration pour ñu voté ko seen bés beneen bi ci topp mooy ministre de la justice dana di ko wat ndax moo ko jàppale woon ministre de l'intérieur dana ko jàppale publiquement salle bi ñëpp di ko fekk kon du ma voté sa bés te bi ñu yooyu man lu may def mu assumé ko lii dama def jël naa courage def ko mais di ko def pare a ñàkk la ndax ñun ñëpp xamante nañ ku ci nekk la nga def xam nañ la ne ca mais daal lan moo nekk si ginnaaw nit looy def nit daal booy def daal da koy non non nit Isma Muhammad nit booy dalam daal da nga koy assumer mais def ko pare tuumal ay gorwo wa ilaa ay prétexte nan budget bi du ko contre ndax Touba dañ ciy gis di six miliar. milliards Touba mënu cee bénéfice ngan milliards nga naan Touba dañ ciy gis bopp loolu yëpp waa Touba la. surtout nga di ko layal naan Touba Macky Sall def na benn commissariat de police assainissement bi yokk na ko milliards loolu yëpp waa Touba la Touba mérito nañ lu ndax Touba dañuy contribuer mais mom néna na Touba moo ko gën sax Sénégal donc euh, bu gissé lo xam njëriñ ci si Touba mu woté ko loolu pour man erreur de communication la man mak Sall bu défaron Touba ba melni ba melni aljana àjjana te defarul Sénégal du ma voté bitse bi sëñ mon sëñ Sidi Moutar nako na yalla nako sun borom xaar yok yokk ay léram mënd amna ci Sénégal Touba am mënd mu yónnee fi 1 milliard ci Dakar te Touba amoon na mënd sëñ Touba li ko taxoon a jóg nit ñëpp dund ci dund ñom waaw dund dund ñoom te contraire ba sax mo am moy Touba mak Sall def fa dara te budget bii prévoir ñu fa pour dara ministère bu fi jaar interpellé nañ lan nga prévoir Touba joxut ñu benn lay ministre infrastructure gis nga Touba amul ay yoon yoon ya fa nekkoon yëpp yàqu na biñ ko laajee ci question yi jëm Touba ñun ñeent député yi dëkk Touba yëpp kenn kum ci tontu amul ba keroog interpellé naa Moustapha ba wax ko ne ko ñun waa Touba dañoo seetlu ne Mansour Faye question bu jëm Touba buñ ko laajee du ci tontu ban problème la mag waa Touba beneen bi ci topp ministre de la santé ñëw na fi ñu laaj ko ci poste de santé centre de santé Sadio war na ko am infrastructure laaj nañ ko ci yoonu Sadio kon ñun dañoo jàpp ne département Mbacké bits bi